salaamaaleykum amis téléspectateurs Equivox TV dal leen ak jàmm tey ñu am mbégte ak kontaante dalal leen seen émission waaye tey ma jàkkaarloo koo xamante ni ndaanaan la kenn du ko présenté si ici au Sénégal euh, nee naa la partout dans le monde mu nekk nit koo xamante ni caractère bi bëri na lool <laughs> tabarakallah macha allah mais mu doon nit ko xamante ni yàgg du ñu bégal euh, saa neex maa ngi maa ngi lay delloo ziar kilifa gi. Euh, baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla. saa neex ñu fekk la sa biir kër tey nga relax euh, <laughs> def ci fa ndaanaan comme d'habitude. <laughs> Euh, ça va. alhamdulilah saa saa buñ bala ñoo commencé suñu waxtaan est-ce que mën nañu fàttali tuuti ci li nga xamante ni moom moo di carrière saa neex les début de saa neex naka la demee. waaw man moom sama début dafa xaw a dafa xaw a jaxasoo tuuti parce que début bi ma am euh, début euh, li ñu naan enfant de la rue ah. mën naa ko tuddee noonu. Mhm. parce que du woon début boo xam ne dañ ma sant euh, lii ma nekk di def nii. dañ ma mhm. santoon pour ma def théâtre dañ ma santoon pour ma jàng. yu jàng bi soo xëyee ñu dugal ma benn centre. pour ma jàng métier. ci biir sant boobu dafa amoon activité activités amoon na euh, activité activité sport amoon na football amoon na théâtre ma dem intégré ci troupe théâtrale bi di ci dem ba ci yàgg amoon ñoom ñooma magoona ah. mm-hmm. après xam nga yàlla dafay may nit rek après ñu ñu jël ba jox ma troupe théâtrale bi. Mhm. ah jox ma mhm. ko fekk ay jigéen ñi góor ñi sax ñoo ma magoon. Mhm. may def ay compétition bon boobu centre bu ñuy wax centre de sauvegarde centre sauvegarde yi éducation surveillée la woon. ma amoon nag ma nekkoon xale bu tëw aussi ah. xale boo xam ni. am xale yu am fit yooyu xam nga ñemee xeex ñeme parce que ñun pour ñu amaan pour ñu amaan morning dañ daan xeex pour dañ daan cooki quoi pour am mhm. xeex mhm. pour am morning parce mhm. que sunu sunu sunu dañu dañ daan teg cotiser sunu ñi ñu magoon dañ ñu daan tegal euh, xaalis ñu cooki boo gañee ñu am luñ la ci reverser après nga kiiwaat nga ñu kiiwaat mais parce que boo gañee dina saf bu buñ la gañee mu sax parce que buñ la gañee ki teg xaalisam da da lay da lay duma voilà après noonu may théâtre eh, ma dugg ci théâtre ba suma ay grand frère bu ma bokkal ndey ak bàyyi léegi sergent la sergent chef la sax euh, sapeur pompier mhm. ànd ak ay moromam ñoom tukku si ni ngay gis. Mhm. ñoom baax vie ba ndey kumba mi nekk suñu troupe bi ay binte mhm. ñu sunuy ay aîné la ñu woon ñoo amoon benn troupe bu ñuy wax troupe Ndumbelaan man ma ci nekkoon xale bu ndaw aussi mm-hmm. sant ma woon aussi pour ma fréquenter troupe bi mm-hmm. mais plutôt pour ma jàngi ma daan daw jàng aussi pour di ñëw di dem di yëndu ci fenêtre yi di seetaan théâtre bi di seetaan répétition yi mm-hmm. ba un jour euh, ñoom ñu amoon parce que ñoom demoon nañu ba troupe nu mbelaan boobu bu compétition amoon a euh, Thiès wala ci ci région ci région de Thiès lu ko woor Mboro Xombol noonu dañ leen daan def or compétition parce que dañoo ayoon dañ daan ñëw rek pour animer un jour mu am ko manqué rek ñu ne mais euh, jël leen Cheikhou mu remplacer ko sam grand frère ni Cheikhou ban ñun leen Cheikhou mu remplacer ko. après ñu remplacer ma moo indi lii quoi. ok euh, ma remplacer ko. ok mën nañu wax ni remplacement remplaçant boobu nga nga doonoon tey jii moo ñëw moo tax nga ñëw fekk fi ay ay ay mag yu nga xamante ni bi ngay ñëw bi ñoo la jiitu ci milieu bi nga ñëw tey imposer sa bopp ba egg si fii tey fi nga egg si. waaw ñoo ma jiitu ci milieu bi mais aussi man xam nga musuma nangu euh, hormis troupe sant centre sauvegarde boobu ñu ma joxoon noonu man fu ma dem xam nga du ma nangu di leen jiite. ok waaw man fu ma dem rek dama naan tekk euh, bàyyi leen ni leen doxal leen. Mhm. après ñoom dinañ gis li nekk ci man. ci yow parce que man duma xëcco ay maa fi mën ak maa def nii ak maa def lool. Mhm. déedéet man je reste toujours derrière. après ma wane samay ay qualité mhm. man noonu laa mel mhm. waaw euh, ci ci ci nga ni doo doo nangu euh, dem ci ci ay nit di leen jiite te nangu woo tamit aussi naan yaa fi mën a euh, mënoo fi ñu gis ni ki nga xamante ni moo di ñànku def nga ak moom duo bu duo boo xamante ni sénégalais yëpp ko bëgg ah macha allah lan moo waral duo boobu da gis ni ñànkoo dafa nekk bërigo ci mbartal puus mu dem puusul mu dem tax nga xëcc ko nga nga bëgg nga def ak moom duo wala c'est venu naturellement non non man euh, dama fi musuma musuma musuma musuma demandé def ak euh, def kenn di ah bon non non non. arri arrivé ma bokk. Mm-hmm. arrivé gu pour ma dem di demander nit di jouer ak moom non non arrivé gu ma. ñànku aussi euh, même bu fekkoon bëgg na ko parce que wax na ma ko. Mm-hmm. moom aussi demandé wu ko. Mm-hmm. dafa amoon producteur bu ñëwoon. soxla ko soxla ma. Mhm. laaj ko est-ce mën na def man nangu na def ak man diwo est-ce que kii mu ni mu ni ko mu ni producteur bi bu fekkee loolu mën na nekk. sa mhm. serait bien pour pour moom et que ak équipe bu mu àndal quelque chose comme ça. Mhm. kooku suma xarit la mu contacté ma. ma ni ko man aw ma woon problème aw ma ci problème. parce que aussi man ci samay début pour ma feeñoon télé ce n'était pas facile. waa turub jànqeen production à l'occurrence Cheikh moo ma moo ma daan jël si. Mhm. mais musuma demander aussi pour feeñ wala demander pour ñaan ay naan wax ma ma jouer wala damaa bëgg a feeñ. parce mhm. que man sama àdduna noonu la. Mhm. dama gëm ni rek lépp dama ko teg ci loxo yàlla li war am dina am li warul am ma xam ne du sama wërsëg parce que sama papa la loolu la may waxoon mhm. ni ma loo amul tey di nga ko am suba mhm. boo ko amul suba mhm. di ko am ci semaine bi boo ko amul ci semaine bi ci biir mois bi boo ko amul it ci année bi di am boo ko amul ba ngay dee xamal ni waroo ko am surtout parce que man du ma daw di topp ci gannaaw dara man ok euh, ñàkk boobu ngay demandé pour def duo ak nit euh, maanaam mën nañ ko mën nañ ko lal ci par exemple ci lël wala par exemple ci li nga xamante ni maanaam da gisul potentiel ci ñoom mën nañ ko focal mën nañ ko wax ci rëy. waaw wala ñàkk ñàkk maanaam ñoom si ñeneen acteurs yi ñàkk potentiel bi nga xamante ni moo nekk si ñoom. non non non non du amul man gisuma ay acteurs ay ñàkk potentiel. Mhm. parce que aussi boo ñëwee man li nga indi. Mhm. dama koy mettre en valeur. Mhm. d' abord man dama koy mettre en valeur. man du jouer kenn di essayer di ko di ko écraser wala di yegg ci kawam. waaw boo xoolee sama sama duo ak ñànku ay mëndumbe yëpp. dama dama slow jouer simplement parce que bëgguma nekk ñu naan waaw dafay jouer ñoom ba pare di leen essayer di leen wan boppam man li may wane comédie sénégalais Sénégal comédie fii ci Sénégal wane naa fi loo xam ne waxuma kenn du ko fi wane de. Mhm. mais balaa nit du ko fi wane di nga wax lu leer. Mhm. loolu c'est inné ci man. Mhm. man théâtre lu ma neex laa ci def. waxuma ko parce que simplement ou quelque chose comme sax dafa nekk ci man. même film man caméra bu takkee ce n'est plus Cheikhou Gueye mhm. leneen la mhm. loolu yàlla moo ko def ci man mhm. xam man euh, ñi ma jege suma suma benn doom laa am il m'a posé la question plusieurs fois j'ai deux femmes sama sama sama sama sama sama sama aawo seize ans xaw ma quinze ans seize ans presque sëy naa kook moom chaque fois daf ma koy laaj ni ngay mel booy joué lan la même man mënuma répondre loolu man ba na nit lu indi mën naa cee jouer ak yow. Mhm. bu ma doon football ku ku dugg ci terrain loo indi mën naa cee nekk ak yow. Mhm. je ne suis pas une personne boo xam ne dafa rëy. man mhm. je suis très simple. ci lépp nag lu ma lu may dugg ci àdduna je suis très simple. Euh, ñu gis la en tant que animateur euh, à la TFM euh, ñu leen di char de passage Sanekh est-ce que tey pare nga pour tendre la main à la nouvelle génération maanaam jàppale leen maanaam ci côté bi nga xamante ne ci nga nekk mu en tant que comédien acteur jàppale aussi tamit ci wàllu animation. man ci lépp dama ciy jàppale nit. Mm-hmm. ci lépp lu mu mënti doon. mais nag dama nekk nit koo xam ni. Mm-hmm. bugguma sama lu fés. Mm-hmm. man bugguma suma dara ñu koy médiatiser. du lu ma jàppale nit du lu ma dimbali nit wala lu may tiile non non woykat yi sax man du ma woy mm-hmm. pas plus tey may wax ak yow rek mm-hmm. jël naa suma alal fay ko ci studio mm-hmm. koo xam ne mosuma ko gis mosuma ko dégg nit nit a ñëw rek pour wax la exemple fëgg sama kër woykat laa ma gis ni gumba la woykat laa Euh, ma ne ko ma way nga dégg ma ne ko non bul way yabal ko ci studio ni leen frais yi lu ci kii ma def ko. Mhm. borom studio bi woowaat rek ni ma il est bon. Mhm. il faut ñu defal ko clip dafa koy ma ne ko defal lépp dinaa ko fay. Mhm. man bu ñu fësal sama dara. bu ñu ma médiatiser sama dara. li ma yàlla may. ma war ko bokk ak ñi. allah kulli haal ba ba may dugg bàmmeel dinaa ko bokk ak nit ñi. Mhm. je je rester comme sax et que crois que incha allah je resterai comme ça. <laughs> nga dugg ci maanaam ci wàllu way laal ko tuuti euh, ku ne xam ne sa digganteeg Wally Balago Seck euh, doobu coon jooju mais ça dañu gis ni yéen ñi nga xamante ni yéen ay ànd ak artistes yi maanaam ku ci mel ni Wally Balago Seck wala euh, Siri Diop bu coow amee yéen pour ñu gis leen ngeen ngeen ngeen nga àddu ci day day difficile quoi lan moo waral loolu. ñëpp ma xamee jàmm ñëpp xam ni man bëgguma ay nit yu xulloo. Mhm. man man ko naqari deret la mhm. parce que xam naa lu tax. Mhm. man dama xam lan mooy Sénégal. ak kan mooy sénégalais. dama ko jàngat. sam maam génn na àdduna du mag mu juddu tey. fekk woon na Senghor. fekk lépp Sénégal. taaj ma bi may dugg Dakar mu wax ma. li ma war a doxaleeg fi ma war a teg suma tànk. dëgg la man du ma tooñ li may gis ni mhm. man mën nga ma romb sax lu ma ma xam sa couleuru yére bi nga sol. ñenn ñi dañuy defe ni caractère la ñenn ñi dañuy defe ni fuuy la ñenn ñi dañuy defe ni rëy la non parce que on m'a éduqué comme sax sunu kër nit da daan ñëw génn ñibbi sax maam wooñu ne eh, eh, ki fi ñëwoon waaye ki fi ñëwoon yan ban yére la sol waay boo tuddee couleur yére bi une semaine lañ lay dóor parce que dañuy wax ni yow kon gan gi ñëw na fi ba ngay xool ko ba xool couleur yére bi mu sol. ok comprendre mm-hmm. waaw léegi nag bu ñu jaawale loolu ak leneen. Mm-hmm. Euh, diggante woykat yi du ma di tudd ay tur. Mm-hmm. pourtant am na dem naa sama boutique gu benn copain am kenn ku ma ciy wax ma njaay sekk. di ci wax dama leen dama leen yéen ñëpp suma ay rakk ngeen. te séentu asamaan. Mhm. téenal ma xool amu ci yoon. dëgg la ku téen ko gis. Mhm. géej gi ma tànq ndox jarul xëccoo. Mhm. tànqal ba xëm fa doo jëlee ndox mi ci géej gi yëpp yóbbu sa <laughs> yóbbu sa. lu leer nga wax dëgg la. aar bi dafa dafa vaste. aar xam nga lu mu xam. talent xamul coow xamul xëccoo. talent la xam. celui qui est plus talentueux il est là ñëpp xam nañu mais nag. kii ma neex kii laa bëgg aussi jarul dóore nit. Mhm. jarul kaas kii laay bëgg déglu kii moo ma neex kii moo ma saf ku nekk am nga ci sa droit. les goûts et les couleurs sa se discutent mhm. moo tax yooyu di ko wax pour lan et man et puis man du ma gone daal nekkatuma gone yooyu di génn à chaque fois ci internet bi di wax rek wax pour la may wax. loolu lay wax. Mhm. j'ai tellement de choses dans ma tête là ma je suis assez responsable lan lay wax ci diggante ay xale yu xuloog di kii <laughs> li nga ci war a wax bu jotee jarul caméra yi di takk pour nga mhm. wax ku nekk mhm. di nga tase ak moom di nga ko wax li nga ko war a wax te muy doon waxu jàmm mhm. mais la nouvelle génération bi nga gis ñu ñi nga xamante ni ñi ngi def comédie euh, yow saa neex ñu gis la nga yore trois casquettes yoo xamante ni dafa dafa différente maanaam saa saa neex animateur saa neex comédien saa acteur tey lan moo waral changement boobu noonu mitation boobu lan moo ko waral. danga gis ni da nga gis ni booy maanaam ñi ngi ñëw euh, te ek ni ay comédiens yoo xamante ne lañ macha allah am nañ talent danga ragal ni ñoom bu ñëwee par exemple dañ détourné détour détourné sa neex wala lan. yow yow xanaa déggoo li ma la wax. <laughs> man saa dégguma la ngay wax de. man man uh-huh. craindre ma dara ci àdduna. Mm-hmm. craindre ma kenn ci àdduna. man naasi bil xaq bil xaq la man taalibe cheikh mhm. ci ak jullit lañ ma yar mhm. ci ak ngëm-ngëm lañ ma yar mhm. gis nga li ma war a li ma war a nekk fa ma war a àgg doomu aadama mënul teree ma àgg fa moo mën a teree ma li ma war a jot ci sama loxo bi yàlla mënul teree ma jot ci dama ni la lii may liggéey ci terrain football kay nga may dugal ma xam ne mënuma ci dara lii may liggéey nii muy théâtre mhm. man saa maa ci mën saa neex lii défilé waa waaye déglu dama dama lay wax <laughs> mhm. man maa dàq théâtre ci Sénégal te duma ko doxe duma ko jëfe mhm. te ñi koy def xam nañu ko ok man mën naa li may def xam naa li may def parce que ba mu ba ñu amulee ñun possibilité dem defi ko Dakar. lu mhm. ñu jël alal xam nga xam nga en deux mille euh, quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf xam nga huit millions xaalis la woon. Mhm. te boobu bu ñuy tiit di dee. Mhm. maanaam amuñu woon xaalis ñun. la ba ñu bindee suñu projet ñu finance ñu huit millions dañ koo jël fayee ko ay kàngaam ci wàllu théâtre mhm. ñu déplacé wu ñëw Thiès ñu dëkkal leen loger leen di leen fay pour ñu jàngal ñu lii ñuy def ñii ñun mhm. bu nit ñi defee ni ñun jànguñu ko ok ngay gis man ma comédie ba mu neex ma après ma dem def drame après ma dem def la te lu ma ci def nga ni kii loolu la gën a mën waaw ñu gis ko ci ci wiiri wiiri ak Bourguéwal ak film yu may joué yoo xam ne sénégalais yi seetaanuñ ko saa yaa ngi nëbb sa bopp waaw parce que man tiituma ay détrôné ay affaire yooyu macha allah. saa su ma la déggee bu baax da nga lancé défi mooy jeune talent yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. ak jeune talent ñoom jeune talent yi bu ñu waxee ñoom man dumbe ci lañ bokk ñoom. Euh, ñoom ñaa ngi ko seen papa. non papa lañ may wax dama ne. waaw saa neex noo defal ndànk defal defal ndànk milieu dafa yaatu. waaw dafa naan euh, kilifa gi. Uh-huh. pour ñu tëj dabaa boobu. Mm-hmm. man Cheikhou Gueye. Mm-hmm. maa dàqa théâtre ci Sénégal. <laughs> loolu de kenn mënu ci dara. loolu. Mhm. ñi koy def xam nañu ko. Mhm. amul werante loolu man. Mhm. maa dàq théâtre ci Sénégal. man théâtre dafa dee ci sama yaram wi te du ma ko forcer. loolu taalibe yi ci mbedd mi sax di làkk pël ak loolu rek la ñuy waxtaanee. <laughs> barki yàlla. non lu leer lu leer. ma de non je sais je sais hmm. grand yàgg nañ yàgg nañ di la suivre euh, tey jii ñi nga xamante ni ñoom nga fi fekkoon bi ngay ñëw ba ñi nga xamante ni ñoom nga maaseel jamono ak ñi nga xamante ni par exemple say rakk lañ wala say doom lañ loolu dañ koy wax mais ça milieu bi bëri trop ah bëri ñu fi nekk est-ce que yaakaar nga ni booy yi nii mën nañ jël relève bi. a ah oui ils sont ils sont super ah ah oui ah oui. fi loolu amul. ah si man parce que dama lay wax ne Fataay yow yaa bëgg. yaa bëgg a focus débat bi ci entre mën ak yooyu. yu <laughs> fi du mën. <laughs> Uh-huh. du du mën. Uh-huh. li ma mën xam naa ko. ok y ay ay waaju baax ils sont bon ñànku Mandumbe. Uh-huh. Euh, y a d'autres personnes ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ay Ablaye Diouf Serigne Ngagne. vous verrez que bientôt maa ngi def benn duo ak moom. moom Serigne Ngagne signé nañu contrat bi contrat bu bu bu mag boo xam ni producteur bu mag ñëw nañu suñu ko parce que mosuñoo gis ma ma ma ma def ma def euh, duo ak moom. Mhm. dinañ ko def ci mois avril entre avril ak mais mhm. dinañ ko dinañ lancer film dinañ def affiché et tout ça. ils sont mhm. très bons. ils sont très bons. yan relation nga am ak euh, la nouvelle génération. ak ñëpp démb rek j'ai vu euh, Ngor. sama sama sama doom la. Mhm. ñoom ñëpp ah, man man nag xam nga li ma dal aussi. Mhm. macha allah yàlla daf ma defal sutura soo xam ni mais nag loolu pour nga am ko dangay ngay a iñaan. Mhm. da ngay bañ a soxor. da ngay gëm ni xam ni yàlla rek mooy kenn. est-ce que xam nga man musuma xëccoo théâtre. ok xëccoo rôle. billahi wallahi taalahi musuma iñaan nit lu mu am ci àdduna mhm. musuma gis nit mu impressionné ma ci ba ma ñaane ko ci lii may liggéey mhm. ñoom ñëpp suma ay xarit lañu mhm. ñoom ñëpp suma ay rakk lañu ñëpp suma ay jarbaat lañu li may wax bu dul dëgg yàlla bu ma yàlla mayee te dara ci àdduna man awma lu may mais nag loolu gis nga joueurs yi saaga ndey ci terrain ak di kajje ñoo amul condition physique ñoo xamul dara <laughs> mais nit boo xamee li nga doon. Mhm. jarul ngay sonn ci li ngay def. grand ba ma dalee te douze ans laa am di théâtre mhm. léegi man la gone gu sopp laa woon. Mhm. ba man ba ñu dalee teer dafa yàgg ñu dañ daan fekk poto lampe ci mbedd muy tàkk noonu rek man Cheikh Ndiaye ak Aziz ak sunu waa troupe ñuy teyaatu ci taatu poto lampe bi kenn du fa nekk ba nit ñi ñëw di seetaan di seetaan ba fees dell parce que boobu ñu ngi natt suñu bopp ñun lan la man phénomène laa ci théâtre te xam naa ni mi ngi ci man gis nga man bu caméra tàkkee dootuma nekk man déggoo dama ne la rap laay nekk man l'inspiration ma vient de partout te lu ma wax loolu la. Mhm. man du ma juum ci théâtre dama ko maîtriser dama xam lan mooy lan mooy théâtre man bu ma bëggee nit ñi jooy dinañ jooy bu ma bëggee ñu ree dinañ ree bu ma bëggee ñu triste dinañ ñun soleil levant yàlla da na a may ci loolu. Mhm. gis nga super étoile ni mu homogéné. Mhm. gis nga aragon ni mu homogéné. Mhm. Ah, ci kii. ñun loolu la ñu yàlla may ci théâtre est-ce que xam nga ñun mësuñu répété ci sunu adduna bu dul ñu def war a def grand théâtre troupe yi ngay wax nii nañ dem yéeg grand théâtre ok nañ def théâtre de scène troupe yaa ngi koy jugé ci théâtre de scène waaw ñu ñu ñu ñu seet démb seetaan si extrait boo xamante ni euh, maa ngi ko doon gis ci ci YouTube bi Sanekh théâtre sur scène est-ce que yomb na. <laughs> waaw léegi léegi léegi dañuy dem nga def leen nga yóbbu leen fu mel ne grand théâtre wala ay Sorano nga leen joué leen. Mhm. du dara moo tax dañuy ku nekk mën nga ko jël ci mbedd mi mu def ko. ok parce que da ngay dem caméra yi takk gros plan plan. serré large nangam plan mhm. large. nga wax mu baax ñu embooté ba embo emboîté baaxul ñu ñu ni coupé non defal lii fii da ngay kii ngay def booba muy baax rek. seen bi bu baaxee nga emboîté bu baaxul nga nga nga nga nga kii nga formaté carte bi defaraat noonu rek la. Mhm. da ngay dem théâtre sur scène nga live. Mhm. nit ñi toog foofu amul coupé amul dara nga doxal. ni ko soleil levant di defee. dëgg la ñun lii dañ ko mbapat de. Mhm. li ñuy def nii ñu dañoo nekk ay gone di ko def ñu ñu ci duma di ñu génne suñu kër yi ñuy bokk benn néeg di fanaan mhm. di di rëcc di déserté di ko def di rëcc di fàq suñu kër yi di ko defi di ko nëbb mhm. di jël suñu alal yu way jur yi di ci def ñun dem nañu ba tayle Aziz ñaan sàcc sàcc cin seen kër ma sàcc mbana sunu kër sa njaay inde ñu sàcc ay darab tayle ko pour théâtre pour théâtre waaw kon saa neex loolu loolu tey moo loolu tey moo moo fayeeku moo feeñ ñi ah voilà voilà saa euh, ñu gisee ni maison de production yi bari nañ trop ah et que troupe yi bëri nañ trop macha allah est-ce que tey euh, produit yi ñu ngi baax xam nga tey am maison de production yu bëri acteurs yi bëri comédiens yi bëri te produit bu baaxul tamit loolu beneen affaire la. <laughs> waa kilifa gi loolu nag moom. Mhm. xam sa am fi lu ñuy tëb amu fi nag. man man moom. <laughs> Eh. dama di kilifa. Mm-hmm. man lu ma man li ma intéressé rek wax. ok. produit jàmbur moom man du ma wax. doo ci wax dëgg la. Mm, nangul naa la ko. parce que du ma du ma kii du ma du ma spécialiste kii ma ci côté boobu. Mm-hmm. aayu ma ci je ne suis pas metteur en scène. je ne mm-hmm. suis pas réalisateur. man mi ngi may gis ni damaa am sama metteur en scène. Mhm. si sama biir troupe mhm. malgré je suis le directeur artistique mais dama am sama metteur en scène. Mhm. bon voilà euh, produit ñeneen ñi def moom maa ngi leen di féliciter di leen ñaanal yàlla mu dem kanam. mais duma ci wax. mais en tant que acteur culturel euh, ñu gis leen bu bu mbas amee ngeen génn def sensibilisation euh, di ci wax di fexe nit ñi di moytu tey ñu gis ni suñu réew Sénégal et que ni fan yi ci ginnaaw ñu génn tàngoon na lool. voilà euh, tey neex ban message ngay jox euh, euh, les hommes politiques ak li nga xamante ni moo di la jeunesse. bon comme man dañu nekk réew moo xam ne comme li ma lay wax ni dama jàngat Sénégal. Mhm. ñun lu fi mës a am. Mhm. ñu wax ñu rek saaga nañ ñu ndey. dëgg la. Sénégal moom bindoo noonu. Mhm. parce que léegi dañoo jël saaga ndey. ak xas. xëy na def ko arme. dafa am benn moment buñ fi amoon am lu fi amoon ci senegal ñuy woote calme. Mhm. def fi benn sensibilisation woo nit ñi ci calme defe approche élection la woon. Mhm. mais on a reçu tellement d'injures après suñu waa kër yi mhm. je suis allé aux États-Unis ma nekk di def ñu may décerner foofu benn prix ma benn film foofu. lorsque je suis parti <coughs> ku ñuy wax Aliou Sine ak euh, ñi réalisé woon film yi jënd suñu ay billets nangam nangam ma dem joué bi may dem bi may dellu ma ànd ak Cheikh Ndiaye ak Aziz. Mm-hmm. on a dit ni bon ay góor jigéen ñoo jënd seen billet. Mm-hmm. après foofu tëj. Mm-hmm. parce que amuñu passage ñu ni way sax neex dafa dafa dafa jàpp dafay jàppale góor jigéen yi. daf leen di dooleel. j'ai reçu tellement d'injures tellement de, de mauvaises venant, venant, de mon peuple. Mm -hmm. Ok, je me suis bon, ok, kan mm-hmm. euh, lay tontu quoi. kan mm-hmm. lay tontu. ma toogaat fi ba ci yàgg euh, mënuma ko wax sax sama benn papa jékki-jékki ni ñu annoncé ni dafa dee mu ni man maa wax ni maa ko rey. Mm-hmm. après toutes ces analyses là j'ai j'ai avec ma famille. léegi on s'est dit que bon. wax baaxul. Mhm. il faut pas que ñu saa yoo amee possibilité wax rek ngay wax wax di mhm. wax di wax surtout dans un pays où euh, doo xam qui t'insulte doo mhm. xam pourquoi on t'insulte euh, doo xam projet bi quoi c'est quoi le projet d'insulter comme ça d'insulter d'insulter d'insulter li ma la wax sànq la nga man li ma war a def ak li may def kenn ko yëg ay nañ jàppale ñi ñi si génn àdduna nañ kii demal nga def ko rek mm-hmm. te yàlla tax mm-hmm. yónneel sax te bu ñi ñi ngay yónnee nga leen buñ ci tudd sama tur mm-hmm. defal li nga war a def rek yàlla xam na bu fekkee da ngay def te yàlla tax rek amul problème parce que man ñi génn àdduna nii ci événement yi am naa ci mbokk ah est-ce que taxaw naa man est-ce que taxaw naa di ko jooy kon ñu ni li muy mbokk ma tax. Mm-hmm. dëgg la du dëgg. Mm-hmm. mais da ngay jël lépp teg ko ci loxo yàlla sunu borom. Mm-hmm. metti ma man événement bi yëpp su ma yoon nekkul ci ay politique ak ay nangam ak sàngam. man je vous dis. Macky bi ma koy xam nekkul ministre. boobu ma ngay liggéey ci affaire mine ca ICS. Mhm. Macky Sall bi may njëkk a may deux cent mille francs. Mhm. ak di ma wax tooyoo moom frère. Mhm. xalaatul nekku ministre. dafay ñaaw nit nga ànd ak moom ca dara ba mu dee dara. mu bëgg la ci dara ba mu nekkee looyee dara. mu dem ba tollu yenn situation yi. ngay nëbb sa xameel ak moom ak sa cofeel ak moom mhm. c'est très mauvais mhm. man bundoowuma loolu mhm. bis bu ma la taggee tey yow bis bu ma la taggee bu ma la ne jox ma loxo nga jox ma la man la yaa baax man Cheikhou Gueye ba ba may dee jàppal ni boo ma doon rendi ak di ma jam duma la ni yaa bon dëgg la man noonu laa mel parce que bu ma la xas bu ma la taggee demb xas la tey nañ ma war a laaj yow ñaar yooyu ban laa ci man dëgg bindoowuma noonu je ne cautionne pas ce qui s'est passé ñaawlu naa ko ci gouvernement bi trop trop trop trop trop trop affaire irresponsabilité daf ci am trop lu bari bari bari ñi génn xeex ci mbedd mi ñii xiif nañ ñii ils sont frustrés ñii tooñ leen ñii yàqal nañ leen mm-hmm. ñii fekkoon nañ leen ñu leen ñu doon dund ci seen donkaasi gi ñu nangu seen alal mën leen mm-hmm. jaay leen doole parce que kay ma xamal la mm-hmm. gis nga gouvernement Macky Sall bi daf ci am loo xam ne Macky Sall du ko yëg dafa am ay arriviste quoi ay ñoo xam ni ay nit ñu reew quoi ñoo xam ni dañuy ñëw Macky Sall du yëg de ñu ñëw ëpp la doole yàq sa liggéey wala foqati la wala menacer la ou quelque chose comme sa dañ koy def ñoom ci long boo xam ne Macky Sall du ci yëg du ci tin te gis nga yi am nii nii nii nii nii lu jékki-jékki rek moom daal ci kawam la. nitam ay dafa am ay nitam yu réew yu ay gars yu yu yu yu yu nekk ci biir gouvernement bi autant ñu autant réew boo boo tasee ñoom sax dañuy xam ni ñii dañu réew. ñoo xam ni ñoo jël seen ay affaire def ko ba pare le temps que euh, grand bos bi di ko yëg fekk ne affaire bi ëpp na ko doole après ñu jàpp suñu booy yi rey leen taf taf taf taf taf taf taf di leen rey. parce que xam nañ ni boobu peuple bi déchaîné wu ñu mhm. peuple bi comprendre nañu. Macky Sall lan la wax ci tournoi ci ci ci. discours am je vous ai compris. Mhm. il a compris. Mhm. léegi nag nañ yàlla yàlla mu defal ñu surtout. amiin defal ñu jàmm. amiin defal ni li gën ci ñun. te lii bañ a amati. c'est pas parce que tu te tais. que affaire bi méttiwul la. nous on a mm-hmm. ñun duñu ay nitu ordinaire ci dëkk bi. Mm-hmm. ay sénégalais ñoo. dañoo am carte d'identité am fi passeport am fi carte d'électeur. Mm-hmm. bu élection jotee nag après ah il appartient à tout un chacun de de de voir et de juger ce qu'il veut faire mu dem def ko. ok Sanekh euh, euh, dalaloon ñu dalaloon Sanekh l'émission tire à sa fin tey lan mooy doon moo bi nga xamante ni moom ngay tëjee ak la ka ngay wax sénégalais yi. sénégalais yi man je vois que ne ay nit ñu am fulla lañu nit ñu am fayda lañ mhm. mais léegi buñ ñu fekk ci yenn yi mhm. wane nañ sunu fulla mhm. wane nañ sunu fayda wane nañu nii kenn du ñëw di toog sunu kaw di ñu def lu ko neex mais léegi nag après dañuy bàyyi jël alalu jàmbur yi dañuy bàyyi saaga nit ñi ku la saaga saaga ko. Mm-hmm. mais ku la saaga. Mm-hmm. xamoo ko tey eh, et puis dañ lay saaga buñ taseek yow ci mbedd mi après ñoo lay contact di la ree. Mm-hmm. wala nga xam ni mbooloo la doon pour bëgg la song. parce que du ñu doon benn nit pour song la. dëgg la loolu c'est pas sérieux ça n'est pas honnête. du wàllu góor. wane nañ seen fulaak seen fayda nañ taxaw. ku bëggati jaar ci seen kaw te lii yoon. ñu taxawaat ni la san passera pas. loolu ku nekk am nga ci droit mais bul yàq bul xeex euh, bul yàq bul sànni bul toj fu jàmbur. Mm-hmm. parce que li ñu yàq yëpp man ñetti fan a ngi nii. Mm-hmm. je n'ai pas conduit ma voiture. Mm-hmm. parce que awma ma essence. station yëpp boo dem tëj na. après dañuy reprendre à zéro rek. li ñuy def ni ko parce que gars yi groupe de sénégalais yu am seen ay xaalis dem ci banque bi leb seen xaalis booleeg la am dem jënd seen franchise. Mhm. ci Auchan dem jënd seen franchise ci ci Total. Mhm. ils sont venus ci dëkk bi. Mhm. après nga toj ko nga ni français yi laa ko tojal. français un groupe de sénégalais comme yow nga ko tojal ah. parce que c' ça ah loolu bëri dañ ko comprendrewul aussi. ñu ñaan yàlla moo defal ñu jàmm ak sutura. amiin euh, voilà qui met fin à cette édition Abdou Saliou Seye la woon ak Sanekh nee naa nii lay demee bés bu nekk incha allahu rabbi pépp nit mën nekk ci kaw suuf dañuy dem jëli la tàllal suñu micro waxtaan ak yow nii lay demee bés bu nekk mooy siyaar toute l' équipe technique ku ci mel ni El sama euh, sama boobu waaye yàgg maar du ko fàtte benn yoon Gomis Ndiago Bamba Zeyna ma bel maa koy siyaar bu baax a ba lépp bu ma jaar damaa dóor grand bi dóor yu metti damaa ñëw sañcalu garaaw <laughs> Pape Gueye moo fi jaaraa ma nga ci diwaanu marché Colobane xale bi nga xamante ni nee na ma Abdou Saliou booy seeti ndaanaan ñi man maa lay habillé ci kaw ba ci suuf kon di la ñaanal jàmm ju bëree bëri borom Colobane taalibe Serigne Saliou Babacké bii la woon on vous donne rendez-vous très bientôt